ci mbégte rek ak kontaante bu baax a baax a baax rek ni ñu koy defee saa su ne eh, di dalalal ay kilifa ñi nga xamante ne ñoo di internet Sénégal Buzz 221 ñuy kontaan bu baax a baax ci ànd bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd ak ñu ci suñu programme waaye noonu rek a di leen bégal ci lépp loo ne rek bëgg ngeen di ko gis ñu jox leen ko noonu nag la ñu ñëwaatee fii nga xamante ne tey moo di suma kër maman ni ma koy waxee rek saa su ne la koo xamante ne eh, dootuñu ko présenté Sénégal waaye nit la koo xamante ne Sénégal Buzz 221 këram la muy suma maman Selbé Ndom ma seet seeti ko rek comme ni ma koy defee ak moom waxtaan ak moom ci actualité waxtaan ak moom ci yenn yoo xamante ne xew-xewu jamono la mu war cee génnee li nga xamante ne moo di kàddoom partagé ko ak sénégalais comme ni ma ko fekkee woon bee passé tey noonu laa ko fekkee waat rek temps moom xam naa moom li nga ma wax moom ah yoon bi ngay jaar ma jëm laa topp maman sañ seeti nga de nuyu naa la. waaw a di wax a mina sheytaani rajim a rahmaani rahim di sant yàlla rek mm-hmm. sant yàlla bi may sant xam naa fu mu commencé waaye xaw ma fu mu yem mm-hmm. di julli ci sangu-sang yi muy seydina mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam mm. di sant sëriñ Tuubaa xaadim rasul mm-hmm. ah di ziyaare sëñ Muntaqa kenn ku si nekk nag am nga xarit bu la yàlla booleel donte kon nit ñi bëgguñu ma sax côté boobu maanaam wala ñu bëgguñu sëñ Moustapha si kullurenteeg man mhm. waaye nañu xam ne innama amrullahi isa mhm. arada shay'an an yaquluhu kun fa yakun mhm. yàlla moo ma yónni ci sëñ Moustapha Sy sëñ Moustapha Sy it xam ne ndaw sii kat suñu borom moo ko yónni ah mu di ma bindal as sayida Selbé Ndom macha allah xëy na moom xam na sama valeur ginaaw moom nit yàlla la ak nitu yàlla ñoo mën a xamante na ma def ba di ko gis yàlla moo ma ko won mhm. maanaam kenn ku ci nekk nag am na koo xam ne am na foo jaar moom mu nekk Paul Gomis dama dëkk seen kër en 2001 mu metti ci man lool saa su nekk rek day wax seen yaay day leen woo kii mu añ mu nekk geste bu rafet ñoom ñoo ma jàngal sax booy lekk maanaam doo tuur defaat nañ ci man beneen éducation surtout moom Paul Gomis ma di ko ziar di ko jox waayam euh, Wally dafa ne am na njaago yu waale waaye Selbé am na ay njaago ba am ci ay turandoo. Mm. di leen ziar ah macha allah Elaj tey nag moom omelette amul <laughs> maam Ali tey Elaj demandé wul omelette de tey ceebu yàpp la fekk. di mm-hmm. ziar bu baax a baax. saa ne rek noonu lay nekkee ak man ah, di ma tooñ di ma sànni xeer waaye loolu mbégte la ci ñun rek ndax yaa la joo xamante ne ah, nu ku baax la wàccee ay boppam ba mën a maase képp koo xamante ne rek yaa ngi toog wala ngay waxtaan ak moom ñu ko ciy sant bu baax di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm yaay ni mu ubbee sànq sama nuyoo rek lay ñëwaatee ak yow saa su ne rek dañu lay faral di la dalal ah, di waxtaan ak yow ci lépp loo xamante ni actualité la wala mu concerné dëkk bi nga yëkkati ci say kàddu joxe ci sa xalaat jamono ji ñi ngi xool coow li bëri na loolu ci milieu bi nga xamante ne moo di milieu cinéma artistes yi nga xamante ne ñoo doon bëggal sénégalais artistes yi nga xamante ne sénégalais dañ leen a safoo ñu yóbbu fu ne drapeau Sénégal tey ñoom ñoo toog seen biir euh, di ŋàññante di xasante di sànnante xeer ci loo xamante ne lépp lu ko waral rek alalu àdduna la yaay euh, coow loolu nga xamante ne jamono jii mi ngi ci biir artistes yi te leen waralu ko dul alalu àdduna naka nga ko jàngatee ak li nga ciy wax sénégalais. waaw di sant yàlla rek saa su nekk sel Euh, artistes yi dama njëkk a gis Baye Fall mi nga xam ne bët yi dafa am problème bët. Mhm. njëkk a ŋàññ waa troupe Soleil Levant. Mhm. xam nga boo ne soleil levant danga naan dangay njëkke saa neex mm-hmm. moom mi yëgoon ca garab gi ba tax sel ma doom di ko xool diree di yuuxu mm-hmm. foofu laa ko fanwe ci xàmb ya fa laa ko bëggee macha allah mu doon sama rak mm-hmm. joo xam ne tey jii su ma ko woowoon téléphone dama ko wax dina ma ko defal ndax ku baax la ah ñu gisaat euh, euh, kii Njaay Lamine Njaay aussi ŋàññaat ne joxuñu ko xaalisam nangam nangam ñu gisaat encore ki sant ba nii vieux ba mm-hmm. maanaam taxawaat ŋàññaat ba tax euh, saaneex mer ba lu mu ko dencaloon mu génne ko mm-hmm. maanaam mu nekk lu métti daal loo xam ne métti na vieux ba ci moom laay njëkkee mm-hmm. waroon naa xam ne saaneex fat na ko hébergé na ko sept ans bien vrai que ne neexul côté saaneex bëggumoon mu wax ko ndax dafa defoon te yàlla rekk tax su ma paree doog a ñëw ci vie ba ginnaaw saa neex yow dangaa defoon te yàlla rek tax. Mm-hmm. maanaam war woon a mer ba génne. Mm-hmm. loola. Mm-hmm. ndax ku la liggéeyal danga koy fay. gis naa ni nga bëggee Youssou Ndour luñ ne nii nga ne Youssou Ndour te du hôpital fexe ba Youssou Ndour seet si la. tey jii li ngay liggéey bu la Youssou Ndour woon dool woon woon doo am loo dundee ak sa njaboot. Mm-hmm. peut-être vie ba côté boobu rek moom la jàpp. Mm-hmm. ba tax mu taxaw ne nañ ko fay xaalisam fayuñu ko. Mm-hmm. gis nga euh, yéen def ngeen fi lu ne saa neex yéen def ngeen fi lu ne. def ngeen fi lu ne yéen lu ngeen laalu laalutoon neexut surtout histoire sumbulu bi. Mm. tubaari kàlla soleil levant li mu fi def. ah daaray koot ki sax xanaa defu ko fi kon maanaam man dama leen di ñaan yéen ci seen biir maanaam ngeen waxtaan euh, ki sant baa vie ba vie ba yow waroon nga bañ a génn loolu sax mu jëm kaw ginnaaw yàgg saaneex dégg euh, séqoon ngeen teraanga nga nekk ci ay situation saaneex fat la maanaam ngay tëdd moom ci kaw lal mhm. yenn saay moom muy tëdd ci suuf bàyyi la kaw lal bi ba waajuram jël la maanaam waroon ngaa sédd loolu ba maanaam nga di ko wax ak moom ndànk rek lu mu am rek mu sànni la ndax théâtre bu amul sponsor xaalis amul sponsor la war a am gis nga les femmes les xaw ma les femmes mariées mm. ah. mm-hmm. gis nga sponsor yi ñuy yi ñuy publicité balaa kii bi di commencé épisode yi di commencé mm-hmm. euh, théâtre bu amul sponsor nit ki nag ni muy doone gune di màgg noonu lay màggetee mm-hmm. xëy na soleil levant màgget na mhm. yeneen série yu bees ñoo fi nekk ay karmaak yooyu mhm. soo xoolee euh, am na waaw ci kii bi dijee dijee bu nekkoon un café avec euh, mhm. ku ko gis rek soleil levant bu defee nii rek du lobet mm. ndax gis nga un café avec ni mu neexe woon mu dem ba nit ñi rocceeku naan duñ leen fay nangam nangam maanaam euh, femme mariée aussi c'est la même chose xëy na soleil levant foofu la toll. Mhm. mais ngeen mànkoo waat rek. Mhm. te ay artistes yi ngeen man loolu moom ma gënal ngeen di weerante. Mhm. nañu mànkoo waat ñoom ci seen biir gën a dóoraat yi gën a xew. def ay série yu nice sponsor yu ñëw moo gën ñoom daal su ma sañoon ñu wax leen te ci seen biir te mu bañ a génn. parce que bu génnee selbel na ci am yoon mm-hmm. maam aale dina ci am yoon elage dina ci am yoon samba ak demba dinañ ci am yoon faatu dina ci am yoon loolu man d'accord ma ci parce que Sanekh nit la am na benn jour euh, ñu taxaw toog seen plateau li ma waxoon Iran Ndao mm-hmm. su weddee xam nga su ma nee Iran Ndao nañoo xool sama alxuraan bi mm-hmm. c'est pas parce que damay ne naañ Iran Ndao nañoo moom ko samay taat wala man ma nopp Iran Ndao man nobuma Iran Ndao Iran Ndao c'est mon frère. li mu dëggu ci lislaam loolu rek moo taxoon ma ne na Iran ñëw. mais dañoo toog plateau di kàll naan kooku nee na na ñëw xool alxuraan di ma kokkali. ku doon def loolu. cheikh cheikh la. Jojo. Mhm. ak keneen. ak. Euh, euh, Aziz Niane ak Sanex ak Sanex. Ah. dégg nga ñuy wax di kokkali ma xam ma seetaan dama woo Sanex. Mhm. ma ne gis naa loo xam ne neexu ma mhm. effectivement alxuraan dafa am ci sama pooj maanaam tey jii am ma benn intérêt taxaw naan alxuraan dafa nekk sama pooj te nekku nekku sama pooj. li nga mhm. xam ne moom laa wax. Iran dafa dëggu lu nit ñi nëbb Iran Ndao moo koy feeñal loolu rek moo taxoon ma ne ne Iran ñoo xool. Mm-hmm. waaye nekkul ne man damaa nopp Iran mu ne ma ci kàttanu yàlla dootu ko déggati. moom Sanex. barakati laa ilaaha illallah dama ne ko yow suma frère nga te gis naa ci seen plateau bi loo xam ne naqari na ma te dégg naa ko te bëggumaa jot ak ñoom ndax xam naa sama bopp. Mm-hmm. am na loo xam ne man magum jëm su ma eboo nit dinaa fi bàyyi. Iran Ndao loolu baaxut. man alxuraan sama pooj la nekk. Mm-hmm. bi ko yàlla def tàgguuma. su ma tàggu woon ci jóob yi la koy def. ñëpp di ko gis bu ma tàggoon da koy def ci loxo bi. Mhm. waaye da ko neex gis nga tomb tomb kii maanaam daaj ji nga xam ne day tas day màgg. Mhm. gis naa ko bi ma nekkee xale. Mhm. mais dama foogoon ne tache bu noir la rek ginnaaw am naa tache fii. am tache noire fii ci bët bi aussi am na tache noire pour man loolu la rek am na yeneen yoo xam ne mi ngi génn ci man. gis nga day màgg. écriture coran après su màggee écriture coran moo ciy génn bëri la naa ko lool maanaam yàlla may ma ko kon man su ma taxawee ba ne alxuraan mi ngi ci man mi ngi ci man mais dañoo toog plateau Jojo di kokkali euh, Aziz Niane di ko feelu mais man taxul ma woo ni ma woo Jojo ma Jojo woo ma Aziz Niane Aziz Niane doomam bu jigéen xam na ma Aziz dafa baax suma frère la xëy na Jojo laa miinante wut te Jojo dagge naa ak moom ca ngénte sumbul après mais taxul ma wax ko na yow nga ma def ba ma gisee lu ma lu lu ma naqare sa laa woo sa neex ne ma incha allahu rabbi ci kattanu yàlla doo ko dégg ba ba tey déggaatuma ñu may kokkale wala ñu di ma ñaawal wala ñu di ma traité leneen noonu la gis nga nit boo amee loolu naqari seetal ki nga xam ne mën na koo faj nga wax ko ba mënoon naa woo saa ci privé ñoom ak yàlla ñu traité ko saaneex di dimbale ñoo xam ne amuñu. Mhm. dégg naa ay artistes yi wax naan Sanekh moo ma dimbale. Mhm. saaneex yàlla moo ko def mu am xol bu rafet. Mhm. barakallah ma am naa ci Sanekh confiance. billaahi ma la dërëm ndax maa ngi sant yàlla maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa maa ngi sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di sant maam li max Mahdi mi nga xam ne ba ñoo bëggee tëj ca kaso ba ca brigade de recherche jox jox sama convocation. Euh, euh, Bassirou Gueye le procureur de la république pour mu tëj ma maam li max di moom moom moo ma feng ne ma sel ba duggal ci géej gi la waaye mënul ci géej du ko mën ci yow damaa dem brigade de recherche commandant ba wax ma wax da doon jooy ne ma dinañ la bàyyi. Mhm. bàyyi ma ma ñibbisi. Seydil Hadj Malick damay feebar Seydil Hadj Malick day dafay jaar ci fenêtre bi def comme biddéew ñëw ne ma sel ba sa feebar bi delloo ko ci yàlla. moo tax man toujours allahu sama signature sax allahu la uh-huh. maanaam kenn ku ci nekk rek uh-huh. maanaam fa nga xool fa ngay waxtaaneek sa moroom soleil levant def ngeen lu ne ci àdduna bi uh-huh. bégal ngeen nit ñi reetaan nañ ba ay suñuy bët di jooy ndax bég dindi ngeen stress dimbale leen ñu ngir yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba bu leen ñu tegaat stress ndax man Selbé maa ngi leen di xaar feneen fu gën a neex ci li ngeen doon def booloo baat leen saa neex yow yaay ndey ji seex hmm. yaa ci gën a feeñ wool woowaatal ñëpp ci daraja Seydina Mohamed hmm. ngeen toogaat ngeen def comme euh, café avec ni nga ko doon joué neex na am ngeen xel hmm. xam nga ngeen joué waat leneen lu gën a neex moo gën ngeen di séparé wu kenn ku ci nekk naan yoral na ma nàngam théâtre bu amul sponsor Sanekh mënu koo fay faw ñu comprendre ante man bëgguma kenn taxaw naan ñii fay ñu mën ñi damaa am problème ba muy neex kenn waxul ci yéen mm-hmm. bay Fall ba muy neex ngay théâtre théâtre di def euh, di dawal vélo yi mm-hmm. barakalla kenn déggul mu wax mm-hmm. baa mii ba muy neex kenn déggul mu wax ñuy ànd di gumba muy neex azir bu sàllan ñu ko fii ba sàllan ñu ko kooku yére riiti bi sàllan ñu ko tukusu sàllan ñu ko jël riiteem mun def mun a fecc da koy reetaan saa neex ñëw dukka ñëw nii def nii macha allah loolu dafa neexoon mm. kon bu leen toog ba heure bii ngir yàlla yonent bi booloo waat leen kenn ku ci nekk ci yéen yàlla may na ko loo xam ne barakallahu mm-hmm. di leen ko ñaan rek booloo waat leen yéen kenn mënu leen ci réew mi kenn mënu leen ci théâtre àndaat leen mm-hmm. stand bi doy na stand bi doy na toogaat leen waxtaan booloowaat man Selbé noom loolu laa leen ñaan xam naa ne mën ngeen ko. Mhm. xam naa ne am ngeen expérience bi. Mhm. bu leen tasaaroo. yéen ñëpp na ngeen di commencé waat ci zéro bu kenn xaar xaalis en attendant ba ngeen joué fi loo xam ne tubaari kàlla sponsor dina ñëwaat. lu ëpp li ngeen amoon dina dina ñëwaat noonu la. nit ki doo xaw a def pose tuuti rek. maanaam commencé kii génn joxuñu ma nangam kii génn joxu na ma saaneex ñu ko bëgg rek mën nañ koo dundal. Mhm. asi ñaan ñu ko bëgg rek mën nañ koo dundal jojo lim fi def tabaari kàlla kon maanaam yéen ñett ñi nga xam ne yéen nekk ca bopp ba convaincre leen ñeneen ñëpp ngeen toog mhm. di. jëlaat seen yeneen inspiration yu bees jamono bi lu nit war a théâtre bëri na sëy yi naqari na mhm. mariage forcé yi ñu ngi fi mhm. maanaam ñaari góor ñaa ngi fi lu bon yëpp ngi mën ngeen a yeete ba képp ku doon def lu bon mën koo bàyyi. man hmm. loolu laa leen di macha allah loolu nga leen di ñaanal maam Ali mi kàddu yu am solo yoo xamante ne xëy na suñu maam eh, pap suñu yaay yëkkati na ko ci li nga xamante ne moo di coow ji ndax saa su rek eh, mbir bu amee ci Sénégal kàddu yu mel nii la sénégalais di xaar ci moment ah. waaye nag yaay eh, ba tey rek li may wax rek ci coow li nga xamante ni moo di Sénégal saa su rek bu ñu jugee ci lii dañuy dal ci lii.